Pero asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel seen télévision Lamp Fall TV nuyuwaat nañ leen fii ci Touba Mbacké fas yéene leen baaxee xibaar yi nga xam ne moo fi bàyyikoo ci biir weeru koor gi. tey nag xibaar yi ñu doore kook euh, daayira Touba ca kanam nooru daare ni journée de solidarité bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci biir weerukoor gi mu nekk bës boo xam ne ni ko amalee daaw noonu lañ ko amale waat ren ñu jébbal lu ëpp ñeenti téeméeri famille ndimbalu takkoo takk loo xam ne. biñ ko évaluer ci suñuy koppar toll na ci fukki million ak juróom-benn yu teg loolu lépp nag ngir jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seeni ginnaaw ci bërëbu sell bi di tubaa ngir ñu mën a amal li nga xam ne moo di koor gi waaye tamit li nga xam ne moo jëm ci korite gi ñu dënmal loole lépp ñu mën koo amal ni ki mbokk euh, jullit yëpp ñu ànd teewlu reportage bi nga xam ne defal nañ leen ko ci. daayira Touba ca kanam nooru daare nii niñ ko amalee woon daaw ci biir weeru gi amalaat nañ ko ren lu toll ci ñeenti téeméeri famille yoo xam ne jébbal nañ leen ak ndimbal muy ceeb diwlin tàndarma ay yére ba ci yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ ko jébbal ñi nga xamante ni waaye laago lañu. am na ñoo xam ne nii buñ leen taxawut lañ naroon a jëndee ay yére ngir mën koo sol mën naa am ñu def ko ci seen dund moo tax jël waajal nañ ñeenti téeméeri yére. yoo xam ne nii képp ku ñu jox ndimbal yooyu dañu si boole ab yére boo xam ne ci ci korite gi incha nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw rawatina ñi seen cër wàññeeku ndax ñun ñëpp ay handicapé lañ euh, beral nañ leen fii ñeen fukki euh, fukki sees roulant ak juróom incha allah ak fukki sees fukki beeke ak juróom yoo xam ne dafa ñu koy séddale am na tamit benn orphelinat boo xam ne nii gone yi nga xam ne nii seen i waajur xamuñu leen noonu lañ dajale fii ñu tudd ko orphelinat Mame Diarra bokk na ci li nga xam ne ni moom lañ leen fas yéene taxaw daaw joxoon nañ leen cinquante deux cent cinquante mille xam ne ni ñu ngi ñu ngi leen fas yéene jox trois cent mille incha allah ba jox nañ leen ko nag fas nañ yéene tamit am luñ barkeeloo ci mbokk yi nga xam ne nii ñi nga xam ne ni seen seen kër taxu ko demee noonu te ñëw ci jumaa ji mboolem ndimbal yi nga xam ne moom lañ jébbal ñi nga xam ne seen loxo jotul seeni ginnaaw ci Touba Mbacké ñu ngi ko xayma ci fukki million ak juróom benn ci suñuy koppar yu teg mu yokk lool buñ ko méngaleeg at mi weesu. global bi naa xam ndax démb yaakaar naa li ci ëpp ci journée bi defoon nañ te bin bin démb rek lu toll ak 8 millions et quelque tase woon na fi. te yaakaar naa bi ñu génnee fere yi war a def yëpp noppi lu tolloo 4 millions 4 neuf cent defoon na fi loolu ci boolee yi ñëwaat tey yi nga xam ne sóoraale woo koon ak ñi nga xam ne ci ba biir mbaar mi rek li fi dajee ci xaalis ëpp na 2 millions et quelque kon loolu lépp buñ ko boolee xam naa dana naqaree xayma waaye minimum gën ngaa néew moom li ñu am ci social bi dana ëpp 16 millions te année bii weesu yaakaar naa li ñu amoon lépp bi ñu defee fere yeeg yëpp woon du benn dërëm boo xam ne bàyyeekoo na ci ñaar yi nga xam ne taalibe muridi moom lañuy ñuy waaye ndimbal gi mi ngi bàyyeekoo ci bonne volonté yi ba ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir joxe na ci. loolu lépp nag benn dërëm bu ci duggee ci ñaar yi nga xam ne moom la laaj murid bu nekk ci weer nekk amu lépp jaayante lay doon boo xam ne chaque weer rek ñun bokk taalibe yi nekk membre Touba Ca Kanam ak ñi nga xam ne nii lu baax ñoo ku nekk day yëkkati aw ñaqam def ko ci beneen ji ñu am tawfeex yi Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne nii moo fi nekkal Serigne Touba moo moo moo jiitu ci jaayante bi ndax bi ma demee di ko la ma wax ne man nañ ko tuddee gën a yeesal jaayante ba def ci jëf joo xam ne nii jëf ji koy jot la. daayira Touba ca kanam seen yéene ci bërëbu sell bi di Touba su weesoo infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ko fiy liggéey. dañuy taxaw bu baax ci social bi waaye it bëgg nañu taxawal benn mutuelle de santé boo xamante nii dañuy jàppale taalibe yi ci faju waaye it taxawal benn fonds boo xam ne dafa jëm ci wàllum asaka di ko ci dajale di ci dimbala ñoo xamante ni buñ demee at daañu mën a dimbale ñeneen. mu nekk leeral bi nga xam ne defal nañ leen ko mu bàyyeekoo ci journée de solidarité bi waa daayira Touba ca kanam nooru daara ni doon amal ci mbaaru daara xuddoos bi ba léegi mbokk yi ci xibaar yi université Cheikhul Khadim maanaam complexe universitaire bi nga xam ne Cheikh mun taxa Mbacké Bachir moom la bëgg a taxawal fii ci Touba Mbacké amal nañ benn lël boo xam ne dañ koo jagleeloon li jëm ci wàllum bibliothèque bi nga xam ne moo war a nekk ci université bi ba tax na ay bibliothécaires yoo xam ne dañoo bàyyeekoo euh, ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak ñu bàyyeekoo ci université Gaston Berger ak Saint ak euh, université bu Bambey ak yeneen université yoo xam ne yu nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ñëw dajaloo fii ci Touba waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci bibliothèque boobu ak ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéene doxalee loolee ginnaaw waxtaan wi am na ay yoo xamante ni professeur Mor fay bokk ci commission enseignement supérieur bu complexe Cheikhul Khadim yëkkati na ko mu jëm ci li nga xam ne moo jëm ci bibliothèque Cheikhul Khadim boobu ñu ànd teew lay kàddoom mooy naal yi nga xam ne nii gën a am njëriñ ci complexe bi ci ginnaaw bu ngeen fàttalikoo defoon na ay naal yu am solo lool ay lël yu am solo lool lël yooyu nag li ko saxoon a jóg mooy wax ci affaire administration parce que tamit ab complexe daa am na ay ay loo xam ne moo ko lal te règlement am na tamit ay programme yoo xam ne nii war nañ ko def ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne ay naal la yoo xam ne nii mooy li nga xam ne mooy sos daal complexe bi naal bii ñu amaloon nag tey ak euh, daanaka tey ak euh, spécialistes yi mooy naal bu jëm ci bibliothèque bi parce que bibliothèque euh, mën nañu wax ni daal mooy xolu complexe bi ndaxte kuy jàng foo nga yorub téere jàng ay téere ñoo yor ay jàng ñi jàngale ay téere ci nañu sukkandiku jàng ñi jàngal ba pare tamit bu buñ bëgg a xóotal li leen jàngal dañuy xool ay téere ku jóge tamit ci réew mi wala bitim réew ñëw ci complexe bi tamit li nga njëkk def mooy dem ca fa téere nekk pour gëstu fa moo tax day nal boo xam ne daal nal bu amoon solo la pour def daay kaamil joo xam ne ci biir complexe bi day méngoo ak euh, li nga xam ne nii moom la ko sëñ bi bëggee mun taxa mooy liggéey bi nga xam ne nii mun Muntaxa moo ko jox sëñ Ahmad Badawi ni mu ko bëggee donc mooy def loo xam ne na jëmmal complexe bi te université nag mooy mooy mooy complexe bi ndaxte bu nga demee ci yenn dëkk yëpp buñ ne bibliothèque université sangam dañuy njëkk a xool mooy bibliothèque donc loolu nag lañ nekkoon ci liggéey euh, ñi nga xam nag ñoo doon liggéey ci ñun mooy ñi nga xam ne nii dañoo jógee ci université yi gën mag ci Sénégal ci seen bibliothèque euh, Cheikh Anta Diop Gaston Berger euh, Bambey ñëpp ñëw nañ ak direction des archives nationales ak yeneen kuréel kuréel association di bibliothécaires du Sénégal ak ñëpp ñoo xam ne daal affaire bibliothécaire bibliothécaire moo di ci lañuy yëngatu affaire documentation ak yeneen activité ñoo lëkkaloog ñi nga xam ne mooy waa tuuba ndaxte waa Touba tamit ñoom tamit yàgg na ñoom ay daare kaamil sëñ Moustapha Gata mi ngi nii ama na tamit sëñ Moustapha Dieng ak sëñ Mokhtar Seck jóge Daaru Mbindam ñu ñu dajaloo nag ci benn bërëb te yoo tey di waxtaan pour que bibliothèque bi nga xam ne mën nañu defar ci complexe bi nekk loo xam ne day day méngoog jamono. mu nekkoon kàddu yi professeur Mor Faye doon ñëwaat rek ci li nga xam ne moo di bibliothèque biñ bëgg a def ci université Cheikhul Khadim bi. ba léegi ci fànn googu la ñuy des sax ginnaaw euh, seenu lël googu ñoom demoon nañ ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir doon ko gaaral li nga xam ne moom lañu tënk waxtaan mu jëm rek ci liggéey boobu mu nekk lool Serigne bi rafetlu na ko lool ñaanal leen waaye rafet lu baax yéene bi nga xam ne am nañ ko ngir ànd ak moom liggéeyal Cheikhul Khadim bi rawatina complexe bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fii nii ci Touba Mbacké ñu ànd teewlu kàddu yi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ci itte ji bu baax a a dolli lool. di dolli yaakaaram lool. gën a dalal xel ci li jëm. di gën a dalal xelam ci li ñu jëm. taxawaay bi gis naa ko bu baax a baax a baax. taxawaay bi gis na ko bu baax a baax a baax. taxawaay rek moo mun ta ñàkk. taxawaay rek moo ta ñàkk. waaye moo jafe nag. waaye nag moo jafe. am nan am nan am nan ko ci yéen nag. nee gannaaw am nan ko ci yéen nag. sunu xel dal na bu baax a baax a baax sedd na bu baax. nee na ñoo ngi koy fas yéene ànd ak yéen rek. muy muy liggéey bu rëy bu am njëriñ. kon nag mi ngi noonu rek. yokk suñu itte. ñun ñëpp nañ gën a yokk suñu itte. gën cee jublu baax gën cee jublu bu baax a baax. def ci suñu kem kattan defee rek la ca des. bu ñu ko defee rek la ca des. am nañ yaqin ne danañ ñu ci gàttanu. bañ yóbbu ko fañ ko bëgg bañ ko fañ ko bëgg a yóbbu. mu nekkoon kàddu yi nga xam ne Serigne mun Mbacké Bachir yëkkati na ko mu jëm rek ci euh, ziar bi nga xam ne euh, kilifa yi mu dénk liggéey université bi ci njiitalu Serigne Ahmadou Badawi ak yeneen i professeur professeur ak ay universitaire ak ay bibliothécaire doon nañ ko amal fii ci tubaa doon waxtaan rek lu jëm ci bibliothèque bi nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal ci complexe Cheikhul Khadim bi. mbokk yi ba léegi ci xibaar gi ñuy waajal euh, li nga xam ne moo di laylatul xadr fii ci Touba Mbacké ni nga xam ne noonu la ko soxna Maymunatu Mbacké daan amale ñu koy waajal bu baax a ci dëkk bu sell bii di tubaa ba tax na tàmbali nañ conférence yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci këram gi nekk ci Touba mosquée ci njiitalu njabootam gi di Serigne euh, ki nga xam ne moom di Serigne Abdoulaye Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem euh, waa kër gi ñu amaloon nag waxtaan woo xam ne dañoo tànnoon thème bu am solo moo di code de la famille li weesu ak li nga xam ne moom moo nekk suñ kanam nan la ñuy def ba gën koo méngaleeg li nga xam ne moom moo di suñu diine di waxtaan woo xam ne ay professeur ay boromi xam-xam seq nañ ko waaye jukki nañ ci lenn loo xamante ni dafa bàyyeekoo ci professeur Fat Sarr Sow nga xam ne sociologue la jàngataat bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci code de la famille bu Sénégal ñoo ànd teewlu ay kàddoom. bi ñuy am indépendance dañu amoon juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeenti sàrt yu tënkoon Sénégal mënuñu construire benn société ni dañuy dem jëmukaay ba pare juróom-ñaar fukk 79 ak juróom-ñeentu askan bu nekk ni may at si sama atte laay atte donc objectif moo doon naka la ñuy fexe ba am benn chart boo xam ni nit ñi ku nekk dañu si gis sa bopp ay commission teg nañ leen dëgg la du ñu dellu si parce que dañuy gàttal bi ñu demee ba war kon adopté assemblée nationale këru diine yi dañu waroo loolu la ñu man li may wax du sama wax li ma gis si gëstu ñëpp ànduñu woon loolu moo tax Senghor toog nañu ba jóg dégguñu boobu contestation ànduñu woon ñoom ñëpp te loolu papay archive du famille nu mu tuddati samay partiteur administrateur civil la waa xam a ah, bind na ci wax ko parce que fekkee woon na donc amoon na absence de consensus ci seen biir si li ñu wax ci gëstu waaye sëñ Abdoulahat moom dafa ni xaw ma fan wee Touba moom kenn du fa appliqué Touba lañ wax si gëstu yi moom appliqué wu am na yeneen kër si monde rural bi appelé wuñ ko ko mais moom moo ci fes ni moom appliqué wul kon waxuñu ko woon bi ñu demee ba beneen crise am mooy Abdou Diouf Ablaye ñëw ñu profité wu si dix ans yi ñu ne dañ koy remettre en question jàllul si diggante bi am na ay mouvement wu jigéen yu jóg comme yeewu yeew yi am lu ñu doon xeex comme affaire polygamie moo si gën a fës ñu dem ba 2000 bi nga xamee ne Ablaye Wade moo toog ñoom maam Imam Mbaye Niang ñi jóg nañu SIRCOP ni ñoom tam dañuy proposer code de statut personnel lay Wade ne leen ah Senghor def ko fi kenn laalu ko Abdou Diouf def ko fi kenn laalu ko man ngeen yàpp moo tax ngeen bëgg mu def loolu mooy waxu Ablaye Wade li am ba am moo di pourquoi war nañ ci waxtaan. moo di mënuñu nekk une nation te du duñu am jëmukaay deuxièmement askan la boo xam ne ñi fi bokk ñëpp bokkuñu fu ñu jëm li ma gis ci code bi juriste yi mën nañ ma ko wax si li ma jàngat ñu bari liiruñu code bi dañuy war di wax code de la famille mais ñu bari xamuñu lan nekk si parce que sénégalais yi jàngul nii arabe kon majorité sénégalais yi xamuñu li ñu bind lu mu doon code bi li ñu wax ni valeur dafa am importance ci une société dëgg la Napoléon Bonaparte moo ko tëgg en 1804 te juróom-ñaar fukki réew ak benn ci àddina bi inspiré wu nañu ci code bi Égypte sa la bokk donc ñun effectivement suñu dépendance comme colonie tax na comme pays yi ko nekkoon francophone yëpp te dinaa du rek francophone même États-Unis d'Amérique dafa utiliser aussi le code civil de Napoléon. léegi ñun li gis ci biir code bi moo di boo dee jullit li kii def euh, euh, avocat boobu ni bu deewee nañ ko acte ci acte islam mais code bi daf ko wax nee na bu dee jullit nga soo deewee su dee yow loolu mooy sa volonté ci loolu lañ lay acte kon problème bi sénégalais yi la aussi. parce que sénégalais bu dee ñoom jullit lañu lu ñuy wuti ci tribunal lu leen tere dem attewu ji ci li nga xam ni loolu lañ gëm kon war nañ jamaat éducation ak sénégalais ci seen bopp lan mooy seen propre conviction. mu nekkoon kàddu yi professeur Fassar Sow ci conférence bi nga xam ne moom lañ doon amal ci kër Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma ci kër Soxna Bali gi nga xam ne moo nekkee ci Touba mosquée gi di waajal laylatul xadr gi. mbokk yi dañuy tàggoog yéen ci xibaar yi tey jii ak euh, kuréel bu daara Hizbut ci njàng mu solo mi nga xam ne amal nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul ni nga xam ne noonu lañ ko àndee ak Serigne Mountakha Mbacké mu jëm ci ni nga xam ne noonu lay dundalee euh, weeru koor gi fii ci Touba Mbacké ci teewaayu kilifa yu bëree bëri sant leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ànd ak kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah مدادي wa ade jël